xam euh, euh, noo si xam ne moo fa nekkoon nag euh, ki am doom moo fa ëpp jumla moom li ma li ma nettali daf na léegi tey ci suba daal la fi benn femme ñëw si burs ñëw fekk mu toog yor xale bi mu ne ko jox ma ko dama koy faji ba joxee mu toog ab diir gis ko mu wàcc ñëw ci biir bi laal leen ñu ne ko ñun de yónni ci xale bi su dee guñ moom mun la am na ko fi ñëw sa wulu de jël ba jël noonu dafa xel yéen la yaakaar nag kii euh, ci kooku dafay liggéey wala laa amee ñoom ñu ñëw xool suñu ko tos nit ñoom ñoom ci ñi nekkoon fi liggéey kenn naa ci wu ci léegi nag gardien euh, bi moom li ma li ma wax ma dégg ma ne moom ma ko wax nee na moom ndox si ñëw suba ci moom la jaar pour fekk mu toog mu ne ko damay indi ay yére pour xale bi fa am doom nee na nee na mu iraq ci woon nee na mu bàyyi ko mu dugg bu mu duggee nag nee na bi mu gënaat ci la ñu yoroon la yoraat man nag nee naa ko nag def nga erreur ndax yow ba muy dugg ba mu ne la damay ay yére pour xale bi si gis bi nee ko euh, nu tudd su nga diw nga la mm-hmm. ah, ndax da di ndax da di topp ci yoon ñi nga xam ne ñooy moom clinique bi waaw moom danaa tàmpale sa ko maa ngi nekk bi kay léegi ñoom lan lañ leen wax ne moom mooy ci seen euh, warugar ñoom ña nga solicité ba léegi ñoom man bi ma xëyee fa xalaat fekk moom borom clinique bi ak soxnaam ak safaram bi dina ko ñoom falaa leen sa falaa leen day war. kon tey ci suba lañ ko sàcc. waaw tey ci suba lañ ko sàcc waaw. est-ce que xam nañ ndaw si ay mandarga ci moom nan la mel ak yooyu. waaw ndaw si nee na daa daa daa xees wala mu xeesalu. Ah, nee na nee na du ma nee na ma soo gisee dama xam. baax na jërëjëf.